kii yi mi ngi noonu waxoon naa la ko Abdoul Aziz Niang la si Dabakh xaritu mboolem ko bëggul baax man maa sa xarit waxoon naa la ko man boo ma séenee may dem rek bu laaj fa jëm ci jàmm rek lay dox lu baax rek laay wër tey nag maa ngi fi macha allah coiffure ñu fekk si sunu benn frère bi ñuy wax mu Ba wax naa la bërëb la boo xamante ne boo fiy dugg danañ la xàmmee waaye boo fi génn kenn du la xàmmee danañ dugg ci biir léegi waxtaan ak moom borom macha allah coiffure Algasimu Ba mbokk yi mi ngi noonu seen émission la waar wi ci biir Médina TV ayca ñu dem Karim kii yi mi ngi noonu waxoon naa leen ko ni ma leen ko waxee ci sama entrée xale bi nga xamante ne moom la ñu fekki fii ci rue 21 angle 24 muy borom macha allah coiffure xale la boo xamante ne yor na bërëb boo xamante ne wax naa leen ne boo fiy dugg mbokk yi danañ la xàmmee waaye boo fiy génn kenn du la xàmmee ndax taar bi ngay àndal yemul ci wat la rek waaye balaa ngay génn xale bi dana toppatoo sa bopp bi produit yi nga xamante ne day dem ci bopp yépp xale bi dana ko fi def ku weddi rek laaj ma léeg-léeg may doog dox si mbedd bi nit na ma Aziz da nga jantal da nga waaye macha allah coiffure moo fa jaar moom la ñu fekk fii suñu rakk la Algasimu Algasimu kon ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki réew mi mbokki internetu Medina TV. asalaamaaleykum adduna maa ngi lay fay. Mm-hmm. di la ziar. Mm-hmm. nuyu waa Medina mm-hmm. euh, wax naa ko sànq. ci sama njëlbeen kàddu nga xale nga boo xamante ne xale bu am jom nga ngay ngay doomi Médina Elgasou est-ce que mën nga ñu résumer ci lu gàtt rek euh, sa sa sa jaar-jaar ci liggéey bi. waaw sama jaar-jaar si liggéey bi maa ngi commencé liggéey euh, jàng woon. 2008. Hmm. 2008. waaw. Hmm. Euh, nekkoon si benn grand bu tudd Ibrahima Camara bu nekkoon rue angle 22 waaw nekkoon tamit nit ku baax waaw. Euh, ci Ibrahima Kamara nga jàngee métier est-ce que mën nga ñu wax at bi nga xamante ne moom nga commencé jàng métier. Euh, at bi ma commencé jàng métier mooy nekk 2008. 2008. 2008. waaw. bon kañ nga yëg ne yow mi jot na nga nga liggéeyal sa bopp. Euh, loolu 2015 la. 2015. 2015. 2015. waaw. Elgassoum ba sa jàng ba sa jàng métier méttiwul woon loolu. non képp kuy jàng métier. parfois day métti parfois mu neex. mais man dafa am leneen li ma jiitaloon dafa fekkoon métier bi dama ko bëgg a dugguma ci woon pour ay xaalis daal yooyu noonu dafa nekkoon affaire boo xam ne lu ma neex la rek. Hmm. waaw moo taxoon ma gën ci dugg te am na loo xam ne yu bëri jotuma woon fekk foofu ay yoo xam ne dama ko doon xalaat quoi moo tax. méttiwul na méttiwul waaw. mais lan nga ñu mën a wax tuuti ci ki nga xamante ne moom moo def tey li nga xamante ne métier bi ngay exercer moom moo ko def ci yow lan lan nga ñu mën a wax ci moom tuuti. mu euh, Ibrahima Kamara dafa nekkoon nit ku nit koo xam ne ku wàccee boppam la hmm. te am na lu bëri loo xam ne que Euh, Ibrahima kamera changé na ko ci man. parce que gars yi dañ doon toog naan Algassim da ngay gaaw a mer xam nga rek boo jutee dudee euh, duggee ci benn affaire boo xam ne que ni amoo loo ciy séntu wala amoo loo ciy calculer nga nekk ndaw tamit xam xam nga yaram euh, nu sa deret day tàng. waaw kooku am na jikko yoo xam ne que ne yoroon naa ko mais alhamdulilah bu ma yàlla boole ak moom am na lu bëri loo xam ne que ne changé na ko ci man quoi waaw kooku maa ngi koy sant di ko gërëm. waaw ginnaaw papa ak yaay moom kooku dama koy sant di ko gërëm. bi nga jógee ci moom ndax amul feneen foo jaar balaa ngay yëg si fii di Bersadara. non bi ma jugee si moom parce que moom bokkoon na ak ñoo xam ne dama doon conseil dafa woon am na loo xam ne du wëy xam nga bokkoon na pourtant place bi ma njëkkoon yor am na démarche yu bari yoo xam ne que moom moo ko defoon après waaw ba ma jógee si place am rek juste dafa dem mu installé ma si benn place. boo gisee lii yëpp ma la koy laaj dama la koy laaj ngir ndaw ñi nga xamante ne ñi ngi nekk fii ci Medina rawatina ci réew mi yëpp sax laay wax ñu xool ci yow. ak sa jaar-jaar na sa jaar-jaar ñun xam nañ ko waaye ñi nga xamante ne dañuy seetaan télé bi war nañ ko xam ndaw ñi jàngee si xam ne lépp lépp lépp rek mën na mën na mën na sotti. dara xëyul rek sotti algaas euh, ñu gis ne wat wi léegi. maanaam salon de coiffure yi. bu njëkk dangay ñëw rek watu rek dem dem sa yoon. waaye nag euh, gis nañu yow bokk nga si ñi xamante ne innové nañu fi boo fi duggee macha allah macha bi ngay dégg boo fi duggee boo génn macha allah ngay wax yemoo ci yemoo ci wat rek lan moo la lan moo la poussé ba nga ba nga yokk ci yeneen. waaw parce que du ma dugg si affaire bi mais xam nga doomu aadama chaque jour. Hmm. da ngay ñaan yàlla. affaire yi di gën a yaatu. am na ñoo xam ne suñu ñëwee pour affaire woot bi nii boo leen wootee ba pare dañ lay ne lan moo baax ci affaire yi karaw la ay nu mu tudd ay zaar diw yooyu noonu yëpp yooyu ma gën a pousse ba ma dugg ci loolu. mais du leneen. mais nag algas euh, gis nañ ne place yi place yi boo ko xoolee xam ne place bu cher la place bi boo xoolee xam ne lii ko amul doole. macha allah du ko jël naka naka naka naka nga ciy génnee. pour mën a fay place boo xamante ne cent mille et quelque wala cent nga nga koy fay naka nga koy gérer ba ba mën see génn. Abdoul Aziz sant yàlla rek. Mm-hmm. Euh, xam nga fii nii euh, boo xoolee ci tubaab yi wala naar yi ci loolu la ñu rawee. Mm-hmm. benn affaire dafa am. Mm-hmm. waroo xëy rek nga ne man lii nii mënuma ko duma ko def. doomu aadama da ngay jéngu da ngay jéem. Ah? boo jéemee yàlla da lay jàppale. jéem bi lan la nga gis benn affaire nii bul xool sa morom yor na lii nii nga ne ko noo man kii lu mu yor nii ay affaire yooyu noonu nga jéem ko soxoree wala zaar yooyu noonu xam nga ma gommal yow tamit di nga ko def gom bi lan la nga jug nga ñafe muy métti parce que bu yombee rek war nga daw. te doomu aadama doo xëy rek am il faut ngay yëg escalier par escalier est-ce que waaw kon kon nit ñi soxlawul ñuy wax naan léeg-léeg warkat yi dañuy dañoo dañoo yokk dañoo dañoo cherle wax naa ne ku xool place bi xool li fi nekk yëpp euh, buñ la fayloo 1000 francs wala 2000 francs war nga ko fay. waaw normalement da ngay gis benn nu mu tudd tubaab ñëw fii jël benn affaire boo xam ne terrain bayal boo xam ne dara nekku fa. moo ñëw investir loolu ak loolu foofu nga taxaw nga ne ko ah kii yàq xaalis lay def nii. Mm. mais bu yàggee tuuti yow yaa koy ñëw fekk si. doomu aadama loolu la bul xool nga ne lii mënuma ko duma ci dugg da ngay jug nga jëngu nga xool yàlla da lay jàppare fii du affaire boo xam ne da nga koy yëngu si sa bopp yow da ngay ñëw dugg yow yaa koy engagé wu soo mënul da ngay bàyyi loolu du dara da ngay jéngu yàlla du ñu seetaan. Algaas Medina ñu ngi lay seetaan. Mhm. Dakar ñu ngi lay seetaan Sénégal ñu ngi lay seetaan Algaas est-ce que mën nga wax ñi lay seetaan lan ak lan ngay ngay def. ci biir ci biir ci ci biir salon bi maanaam tey ku bëggoon dara tey mu xam algaas lan ak lan lay def ba mën a ñëw liggéey ak moom. waaw man moom li may def si place bi ak si wallul métier bi. Ah. Ah, benn boo fi ñëwee bu dee da nga mer sax di nga kontaan. deuxièmement ah, su ma nu mu tudd wër boo bëgg boo ñëwee fii mun nga ko am yëpp. lu wóot boo xalaat. bi bi américain yi di def sax. non raw nañ foofu. américain yi def garaaw na ne booy yooyu ñuy def nii di jàllal nii yooyu. léegi ñun dañoo dépassé américain. Ah. bu africain ngay wax. bu africain am africain dafa am. wax ma ci ñaari tur bopp. non ndax gaa yi bu ñu ko déggee ñëw. tànn tànn tur boobu dafa am. waaw parce que ñun dañoo dañoo nekk ndaw yoo xam ne que dañuy doog a commencé. te ñun dañoo bëgg a dem ba américain yi si boppam. du roy si ñun comme si musique nigérien yi na euh, américain yi nu ñu ñëwee roy si africain mm. seen musique bi. moom da ngeen di créé te amoon na waaw da ngay créé. Mm. booy créé kay da ngay gis gars yi ñëw copié si yow comme ni gars yi man instant yi ñun daal du ñu copié si kenn. Mm. instant parce que ñun tam bëgg nañ ñoo xam ne dañuy copié si ñun. mais booy mais booy gars yi nañ ma yow bi nga fi demee gën ñëwaat da nga da nga dafa am loo yëngaloon. ndax fii boo fi ñëwee di wootu huit heures ngay ñëw inscrire ba cinq heures ngay doog a ñëw wootu si. gars yi gars yi nee nañu ñi daan wootu fii ñëpp kenn wootatul ñëpp teg nañ seen place yi. boo fi doxee ñaar nit nga fi fekk nee nañ ñëpp daw nañ ci algaasimu kenn xamul lii lan la. booy wax ñu lan la da nga dem ñëw sotti fi affaire wala lan la. sant yàlla rek. Ah. alhamdulilah wala wala wala liggéey bu baax la. non dafa mel liggéey bu baax la kon. sànq li ma laa doon wax rek. Mhm. doomu aadama moom da ngay jiital mbëggal te xam nga bu ñuy wax mbëggeel dangay yaakaar ne entre góor ak jigéen. Mhm. te mbëggeel dafa euh, universel la quoi loo xam ne dafa ëmb lépp. instant mhm. loo euh, loo jiital mbëggeel moom. ala kulli yaalam di non non booy mbëggeel bi mi ngi ci mais mais ni nga def ba ndaanaan ñu mel ni ñun ndaanaan ñu mel ni ñun xam nga bokk ci gem bi. nga napp ñu ba ñuy ñëw ba fii nga ñuy wat laa la wax ñun noo ñu naxee ba ñuy ñëw. Aziz moo ñu jaaxal Abdoul Aziz. gars yi baax yëpp fii la ñuy watoo Abdoul Aziz ku la gis man loolu ma jaaxal Abdoul Aziz. xam na da nga bëgg lu baax macha allah comme ni nga changé nii. borom jàmbalaay service yaa koy yaa koy wat. kooku yow sama nit ah. la. borom express Médina yaa koy wat. PDG Médina TV yaa koy wat. ñëpp yaa ngi di wat. wax ñu sa kër bi lan la xale bi. nga bàyyi si ngay def. bëgg a nu mu tudd bi ma am si métier bi la. parce que man ma ci xaalis ma ci leneen. affaire bi dama ko bëgg si sama biir xol. instant mm-hmm. lu ci tegu nag bénéfice la sant yàlla rek. léegi bu weesoo wat bi nga xamante ne moom ngay def. Mm. am na yeneen yu ma fi fekk. ci ay xeetu baax baax yoo xamante ne yaa ngi koy def ñoom ñoom nobaa ngi ne maa ngi leen di seen. ak yeneen yëpp est-ce que mën mën nga wax xeetu produit yi ngay jaay nga wax ko nit ñi ngir bu ñuy ñëw ñu waajal ko bu ñu ñëwee mën a laaj ci produit yi. parfum boo bëggee boo amee fii benn di ko am. Hmm. Euh, lépp loo soxla ko nu mu tudd pour euh, defar sa karaw. Hmm. parce que doomu aadama. Hmm. xam nga ñun dañoo tàmm benn affaire. da ngay nekk euh, nu mu tudd sangu chaque jour ngay sangu chaque jours ngay sangu chaque jour ngay xëy. di broche chaque jours ngay xëy. di lekk bopp tamit ak karaw noonu lay dundee loo toppatoo rek da nga koy du loo toppatoo di nga gis euh, résultat benn produit yu fi am pour karaw la doomu aadama waroo bàyyi ba chaque fois saay booy wotu rek nga naan li ngay laal sa bopp hmm. danga koy toppatoo te looy toppatoowee karaw yi noonu lay dundee te loo bëgga dinga ko ci am ay waxuma la ay américain sax mën nga dem ba dépassé yooyu yëpp est loo xalaat ne pour toppatoo karaw rek boo ñëwee fii incha allahu rabbi di nga ko am fii mooy macha allah. Algassim ngay ndaw di xale bu ndaw lan ngay wax tey sa sa sa morom sa moroom yi nga xamante ne ñu ngi fii Medina ak ñu nekk ci réew mi ñëpp yan conseil nga leen di jox. conseil bi ma leen di jox di conseil tamit sama bopp doomu aadama dangay wàccee sa bopp. Mhm. Ah. te nga xam ne àdduna liggéey. dafa am solo si doomu aadama boo bëggee ñëpp respecté la da ngay liggéey boo bëggee ñëpp respecté la da ngay wàccee sa bopp alal nag yàllaa ko yàllaa ko yor mais doomu aadama day jëngu ndaw boo xëyee uta même bu dee amoo liggéey boo xëyee génnal sa gàlle nga dem uti fooy nga uti looy def algaasumu dama dama ñëw sànq déggale la ngay wax waxu wifi dégg ngay wax waxu climatiseur degré sànq nga koy wax yooyu noonu yëpp bu ñëwee bàyyi bàyyi fi du cher. non du cher macha allah coiffure kay boo fi ñëwee moom. wuy na turam. non dina wuyoo turam. kilim ay wifi yooyu yëpp incha allah rabbi mooy fii. Algas yal na yàlla yàggal ànd bi. allahumma sa digganteeg Medina TV yal na ko yàlla. yal ko yàlla sàmm. yéene yi xam nañu ko incha allahu rabbi ni nga ko waxee macha allah coiffure ci sponsor bu Medina yi ci la bokk. incha allah rabbi yàlla na gën a yaatal liggéey bi yaatal wërsëg bi. kon bu ko defee rek euh, ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj ndax it tamit am na ay nit yoo xamante ne lii bu taxawee ñoom jàppale nañ la. am na ay nit yoo xamante ne jàppale nañ la waaye am na ay clients yi tamit yoo xamante ne mënoo ñàkk nga bañ leen tudd nuyu leen à travers émission bii di waar wi ñu bàyyi la nga nga nuyu leen sa client ndax wala day wax ne tàgge boo gis am na jàppal diw am na si ñoo xamante ne ñoom ñooy seen client fidèle war nga leen nuyu à fii ñaanal leen ñu yokku ndax kat wërsëg boo ci bokkee da ngay ñaan mu yokku ñoom bu ñu yokkoo rek yow di nga yokku kon bu defee ñu bàyyi la ñoom it nga nga nga nuyu leen ñu may la nga nga nuyu leen remercier ñi nga war a remercier ñi nga xamante ne li gars ñoom ñoo jàpp ci combat bi. ok maa ngi lay sant di la gërëm. di sant euh, sa collègue. Saliou TV euh, di sant waa groupe Medina TV. Euh, Baye Sidi maa ngi koy sant di ko gërëm. borom jàmmalaay service. kooku ci sponsor yi la bokk. ak Vieux. maa leen di Medina Express. moom it ci la bokk waxal. maa leen di sant di leen gërëm. encore ak Abdoulaye Sané borom ah. BDK borom crédit cash sa waa ji waaw Samba Sané. gars yi si banque yi sax yàlla moom lii lii kenn xamul lan la xale bi. ca yàlla fu nu jëm ak xale bi gars yi macha allah ay eh waay gars yi ñëw leen ak gars yi nga xamante ne dañoo taaruwul nag ñi taaruwul nañuy ñëw jaar fii ndax ñuy mën a taaru fii boo fi génnee li gars yi naan daa jamilu daa rafet ay ca gaas ñu bàyyi la nga yeggali <laughs> ay ko ci dolli. <laughs> mais koo ci dolli koo ci dolli. non Baye Sidi. Baye Sidi laay Baye non Baye Sidi. Diagne. Baye Sidi Diagne. Baye Sidi moom it ay affaire yooyu noonu kooku tamit dafa nekk euh, frère boo xam ne. Hmm. waaw frère bu baax. Hmm. xam nga te Medina dafa mel ni moom yaay la ko ndeysaan. waaw lu tax ma ne yaay. Hmm. moom amul kii am na kii amul. place bi la nekk place bi nekkul mënoon ngeen ne d'origine guinéen la xam nekk fii nii c'est vrai que Rue Neuf la juddoo màggee foofu xam mm-hmm. te loolu yëpp yéen xooloo leen ko. Mm-hmm. xam loolu yëpp xooloo leen ko après nu mu tudd maa leen di sant di leen gërëm waaw di nuy tamit sama frère bi ma bokkal plage bi. ku tudd Moustapha ñu gën ko xam si bas. bas bu xees. ngoog waaw maa ngi koy sant tamit di ko gërëm xamal te nekkoon bu nekk tamit booy boo xam ne macha allah mooy loolu. Algaas. naam est xam nga ne boo daan am benn ñaar ngay am. est xam nga ne boo daan am ñaar ñett ngay am est que xam ne boo daan am ñett ñett ngay am xam nga lu tax. déedéet Medina TV moo tax. macha allah Medina TV mbir la boo xamante ne dafa barke lu ñu laal mu barke fu ma jaar. bu ma fa jaaraatee dama fay fekk leneen bu ma fa fekkoon benn tale naa fekk ñaar bu ma fa fekkoon benn siège naa fekk jëri seen loolu lépp ci barki Médina la ci barki Médina bi nga xamante ne moom la Cheikh Sidi Aji Maalik tuddee woon Médinatu sol moo tax ñun lu ñu laal rek mu barke te man xam nga ne maay xaritu mboolem ko bëgg lu baax da nga bëgg lu baax moo tax ma bëgg lu baax dëgg la parce que nu mu tudd am na yoo xam ne ko yu bëri sam nu mu tudd bu ñuy commencé fii nga ko fekk fekkee nga ko te ba léegi nii boo jàppee yow macha allah doo bàyyi loolu man loolu mën naa ko seedi si yow. alhamdulilah. mbokk yi mi ngi noonu seen émission la woon waar wi ci biir Medina TV tey ñu dalal Algasi mu borom macha allah coiffure wax naa leen ko duma taay di ko wax bërëb la boo xamante ne képp ku ko xam di nga dëggal li may wax kàddu yi may wax léeg-léeg nit day jóge fee di fi dugg buy dugg doo ko xàmmee waaye buy buy dugg da nga koy xàmmee waaye bu génnee dootoo ko xàmmee ndax la Algasi jàppee ba bàyyi la boo génnee. kenn dootu la xàmmee salaamaaleykum wa rahmatullah